assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di fas yéene ànd ak yéen ci benn secret ñaan bu nga xam ne day dimbule nit ki ba mu mën a respecté julli juróom yi am na ñoo xam ne problème boobu lañ am bëgg nañ julli lool waaye duñ julli am ci ñoo xam ne sax dinañu commencé julli ba nga ne noon la ñu xëy bàyyi ko ñooñu nag lii mooy résoudre seen problème ñaan gi mooy saafara seen jafe-jafe waaye ñaan gi itam dina may nit ki barke ci yaramam wala ci jëmmam kon nag mbokk yi da may may ma jéem ko liir ci arab soog a ñëw ci jéem ko tekki ci ci wolof mu ne lil muxaafadati ala solaati wal barakati fil jism takunu ala tahara wa bi kuubi maain wa taqra'u alayhi al ayata وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا سورة مريم السورة التاسع عشر الآية إحدى وثلاثون أه إحدى وسبعين مرة ثم تشرب الماء على ريق النوم لمدة أسبوع mbokk yi dafa wax ne bu fekkee nit ki dafa am problème mu julli soit moom du julli définitivement wala day commencé julli di bàyyiwaat am na ñoo xam ne feebar yooyu da leen di dal bëgg nañ julli xam nañ ne julli lu war la waaye daal pour ñu julli moom problème lay doon waaw am ci ñoo xam ne sax danañ dem ba commencé julli benn fan ñaari fan wala une semaine wala un mois wala lu ko ëpp wala lu ko yées ba nga ne noon lañu xëy bàyyiwaat kon képp ku bëgg a fonk julli bëgg yàlla dimbala ngay respecté julli ñaan gi ñaan gu ama am solo la ci yow waaye itam ñaan gi non seulement dalay dimbale nga respecté julli waaye dalay may barke ci sa jëmm sa yaram day am barke loo laal wala lu taq ci yow day am barke barke nag mooy yokkute maanaam ak yokkute rek ngay gis ci sa jëmm doo dellu ginnaaw mukk moom ngay gis itam ci sa wàllu liggéey moom ngay gis ci sa kër moom ngay gis ci sa njaboot loo dugg ak loo laal daal du dellu ginnaaw day jëm kanam rek di yokku rek di avancer rek mbokk yi secret bi niñ koy jëfandikoo ki ko bëgg a jëfandikoo day fexe ba laab d'abord bu yoree mu ndaw mu jàpp ji bu yoree toj mu mag mu sangu ji farata fexe ba yaramam laab yéreem laab bërëb bi mu nekk laab bu laabee ba noppi mu indi benn kopp benn kopp maanaam in coupe benn kopp wala benn kaas bu def ndox mu teg ndox mi ci kanamam nag mu toog jublu xibla fi ñuy jublu bu ñuy julli ñenn ñi naan ko penku bu ko defee mu teg kaasu ndox bi wala kopp ndox bi ci kanamam daa di Euh, jàng aaya bii may bëgg a wax te mooy wa ja'alani mubaarakan aynama kuntu wa awsani bisolaati wa zakaati maa dumtu hayya ma waxaat ko wa ja'alani mubaarakan aynama kuntu وأوصوني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما وخك وخ بو أند وجعلني مباركا أينما كنت وأوصوني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا aaya bi mi ngi ci suuratu Maryam suuratu Maryam mooy dix-neuvième suuraat muy fukkeelu saar ak juróom-ñeent ci aaya fanweer ak benn muy verset trente et un trente et un euh, ñaata yoon lay jàng aaya bi juróom ñaar fukki yoon ak benn juróom ñaar fukki yoon ak benn muy soixante onze fois boo ko jàngee nag soixante onze fois muy juróom ñaar fukki yoon ak benn mu ëf ko ci ndox moomu mu defoon ci kaas bi wala kopp bi tegoon ko ci kanamam ci ndox moomu la koy ëf ëf mooy souffler waaw wala tifli ni ko ñenn ñuy waxee bu ko defee nag ndox moomu nag moom lay utiliser nan la koy utiliser par guddi guddi gu jot bala moo tëdd day naan ci ndox mi mooy mujj ci gémmiñam nga xam ne bu ko naanee ba noppi day tëdd du lekkaat dara ci guddi gi du naanaat dara ba bët di set waaw ñaata fan la koy naan ayu bës ayu bës mooy bis ba bis ba dellu si wala une semaine wala pendant sept jours wala diirub juróom fan waaw moom yoo xam ne guddi gu jot guddi gu jot bu demee ba pare ci activité am ba dara deseetu ko lu dul tëddi bala moo tëdd mu naan ci saafara si mu mujj ci gémmiñam nga xam ne bu ko xasee ba naan rek day tëdd du lekkaat dara ci guddi gi du naanaat dara ci guddi gi ba bës incha allahu rabbi loolu daal su ko defee bu fekkee ku daan sàggane julli la yàlla dina ko dimbale ba muy respecté julli bu dee itam ku daan commencé julli bañ ne noon la ñéppi kontaan mu xëy bàyyiwaat dina am constance ci julli dina am constance ci julli muy dina respecté julli ba faw incha allah rabbi ñu ne foofu lay yam ñu ne déedéet waaye dana la may barke ci sa jëmmu sa yaram wi sa jëmmu ji ak yokkute rek waaw da ngay gën a am wérgu yaram gën a am wërsëg gën a am xéewal ah gën a am euh, tabaarakallahu jàmm sab liggéey di gën a yokk ngay gis yokkute ci sag njaboot ak sa kër ak lépp loolaal mbokk yi ci kàttanu yàlla e mbokk yi naa taxawandi fii bokk di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di aimé ndax fi la njariñ yi di gën yaatu jàngeen jëf wassalaam